taxawalee njëkk wax ci moom wax naa ko léegi tudd nañu tey tudd nañu yaru parce que nit loo leen àndul ci politique nangul ko lu mu doon wàññiwu la dara parce que nit ñi tamit dañuy jóge ci ay kër seeni dëkkandoog seeni waajur lu ñu def ci ñoom bëgg nañ ñu feddal leen ko waaye dama ci teg ne mu ngi voyager di dem di ñëw j'espère que dina toog ñu déglu ko xam ndax dafa choisir nekk président de la république wala mu nekk président auprès du premier ministre bañ ko dégloo ba pare gis nañ ne ñaar yooyu yëpp du ci benn dafa choisir nekk président par intérim chaise bu mu toog di ko ko chauffeel mu jug kooku toog loolu la ñu am comme lecture ci lu ñu gis loolu nag doon na loo xamante ne ne li day waar la ba tax mu indi ay lay yu garaaw a garaaw garaaw lu mu layal son premier ministre dinañ fi ñëw mais suñu defee lecture si le président de la république li mu wax jàpp nañ ñetti mbir jàpp nañ benn que ne ñoom parce que léegi ñoom ngay wax nekkuñu gëmuñu état de droit dinaa ñëw pourquoi ma ne leen gëmuñu état de droit beneen bi mooy gëmuñu transparence transparence mooy wax mbiri mu leer na leer ñëpp gis transparence Sénégal dafa am sa code de la transparence donc transparence dafa war a doon loo xamante ne képp kuy gouverner war nga ko féetale ci kanam ñoom nekkuñu ci transparence beneen bi nag mooy jàpp naa ne ne amuñu projet waaye diil la ñu am amuñu projet mais deal la ñu am dinaa ñëw ci ñett yooyu yépp bi njëkk bi nga xamante ne ne dama ko wax ci ñàkk gëm état de droit président de la république Bassirou Diomaye Faye dafa wax lu graaw loo xamante ne ni su jugoon jëmal jëmmal ko maanaam mu doon dans la pratique suba mën nañ ko yóbbu ci haute trahison déglu leen bu baax li ma leen di wax ci wutum gage ak wane na ne am na loyauté daganal na loo xamante ne ne mën na ko yóbbul haute trahison mu jëm ci déclaration de politique générale soo mënee taxaw en tant que président de la république ñu wax la yow yaay gardien de la constitution nga waat ne yow di nga sàmm constitution fexe ñu respecter constitution nga taxaw di comparer assemblée nationale ak juri populaire nga taxaw ne suñ defoon jury populaire mooy ëpp qualité assemblée nationale c'est extrêmement grave parce que constitution waxul déclaration de politique générale dañ koy def feneen constitution dafa ne déclaration de politique générale assemblée nationale lañ koy defee pourquoi assemblée nationale parce que assemblée nationale 18 million de sénégalais yooyu muy wax dafa am lu ñuy wax la démocratie représentative ñooñu dañoo fal ay nit nga bëgg leen nag ak nga ñàkk leen bëgg président bii toog fii nga bëgg ko nga ñàkk ko bëgg mooy président député yi nekk assemblée nationale nga bëgg leen nga ñàkk leen bëgg ñoom ñooy député peuple bi donc un président de la république buy jël juris populaire boo xam ne da ngay tànn say nit teg ko au desis de la démocratie représentative jël le choix personnel teg ko au-dessus de la démocratie te démocratie indi ko fa c'est extrêmement grave ma koy wax ne ko monsieur le président fi nga toog keroog di répondre au question xam naa ci réew mi ñoo xam ne suñ fa toogoon ñu pose leen même question seeni réponse mooy ëpp qualité téeméeri junni yoon sa réponse mais ñooñu kenn falu leen lan moo tax ñëpp toog di déglu la président de la république parce que dañ il a été élu au suffrage universel direct nuñ ko éliré au suffrage universel direct noonu la ñu éliré les députés au suffrage universel direct moo tax ma ne gëm ñàkk gëm état de droit boobu moo leen dab ba ñu am solidarité si ne le le choix du peuple dañ koy teg ci suuf ñu jël ñun suñu choix teg ko ci kaw loolu yaa ngi def leneen yaa ngi wàcc yoon te damay faral di wax ne képp ku kuñ fi respecté ci réew mii yoon moo la ko may képp kuñ fi jox cër ci réew mii yoon moo la ko may suñu président rombee ci tali bi dañuy droité ba sës ba yëg trottoir bi mu jàll parce que yoon moo ko may soo respecté wul yoon nag mënatoo am respect ci population yi moo tax dama leen di ñaax neleen li leen mën a tax ngeen di wax di bind ay décret di def ay arrêté di def ay conseil des ministres di jël ay décision di nommer c' est parce que dañ leen a fal c' est parce que loi moo ko encadré soo leen xeebee loi boobu xeeb ngeen seen bopp donc jàpp naa ne loolu li doy waar la li nga xamante ne ne seetlu nañu loolu it confusion de rôle la ñàkk xam pouvoir yi lu muy signifier la ñàkk xam ne lu une autorité nommée n'a rien à voir une autorité élue du sax benn moo tax nag ñu jàpp ne ne ne ni mu régler question boobu def na ko ci anam boo xam ne dafa wàcc yoon donte tey li tax wax naa ko encore une fois loolu amul mooy dafa am sénégalais yu mobilisé wu te heureusement loolu amul parce que su loolu amoon ça serait un précédent dangereux pour notre pays beneen mbir bu ma jàpp ne ne respecté wuñ état de droit dégg ngeen la président si làmmiñam mu ne leen man ak sama premier ministre dañoo tëju ba minuit di xool nan la ñuy defee mbirum justice maanaam am na ay mouvement yu ñu war a def biir justice man ak sama premier ministre dañoo tëju di ko xool ba pare teg si ne magistrat yi ay fonctionnaire lañu comme ñëpp déedéet magistrat yi dañ bokk benn pouvoir bu ñu tuddee le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire bu ñu nekk dañu dañu def daf si ànd ak ay garantie statutaire tey le statut du magistrat sax dafa am loi bu ko teg dafa am ay principe yoo war a respecter etc man ak moom ñoo tëju te premier ministre bokkul conseil supérieur de la magistrature yoonam nekkul ci mbirum yooyu pour xool nan la ñuy defee mouvement loolu tamit lu doy waar la rawatina garaaw le fekk que nga ne am na magistrat yoo xamante ne ne peuple bi rafetlu nañ seen liggéey mais ban peuple moo rafetlu seen liggéey c'est le peuple de l'internet c'est le peuple des réseaux sociaux est-ce qu'il y a eu un sondage wala benn vote bu ñu def pour xam ndax di juge bi wala magistrat bi moo gën bi wala kii lu mu def est-ce que peuple bi mun na apprécier le travail de la justice le travail de la justice des professionnels de la justice ñoo koy apprécier ñoom lu ñu mën a apprécier mooy le travail des impôts et domaines